ayca salaamaaleykum maa ngi nuyu internetu IGFM yi sn maa ngi leen di kontaanee bu baax a baax di déglu seen ay laaj ayca. ok Abba ci groupe Futurs Médias. waaw euh, loolu la yàlla dogal euh, ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. ah noo def nga ñëw fii euh, dañ la contacter yaa ñëw sa bopp wala. waaw dañ ma woo dama nekkoon ci beneen. la suñu liguey kay di liguey euh, mag leen di nuyu bu baax a baax a baax la de gestion bi ay bàyyi rajo donc euh, ñu woo ma ne ma dañ ma soxla après ma ñëw ñu waxtaan ñu wax ma yu may intéressé ñu jubóo après ma atterrir

Bah oui, c'est naturel. Hein. Et euh, Abba, il vit comme il anime, il vit comme il travaille. Donc, c'est inné chez moi. Donc, euh, le naturel de Timan, le Timan le nek, non, on m'a pas senti direct, non, on l'a fait. Quoi. Ok. Gagnons pour relever des défis, défis là, non bah oui, mon ne non, mais comme un challenger là, je vois pas compliqué, mais euh, bataille, je respecte beaucoup Kevin Nekon. Euh, c'est un grand monsieur, ni mako sais dem donc la Angleterre a un grand sir. Donc, euh, Kilifa là, donc, dina ne ben poids ci man mais dimbal gi nga xamni ne samay collègues ak samay directeur ak euh, rew mi ñu ngi ma koy dimbali donc je pense pas mu nekk lu compliqué quoi ci man. kon dina yomb. waaw pour man lu yomb amul mais dina jéem a fexe mu yomb quoi.

Abba Show day ñëw ci kër gi. déedéet ah, ah da ngay laajte et puis et puis et dañ koy gën a defaraat dañ koy jóobaat def ci yu doy waar yoo xam ne na ko gars yi di tàmbi di seetaan euh, ci Europe ak Amérique euh, na ko professionnel yi nekk foofu defee ndax One Man Show la ñu wax donc stand up la ñu wax donc noonu lañ koy defee sañsee def mu neex nga ñëw taxaw wax nit ñi toog di reetaan donc euh, dañ koy gën a réfectionné gën ko defaraat dina doy waar dina doy waar. waaw Abba yow fecc non ñun ay doomi banlieue lañu fréquenté ay kër

mais aba plus. yokk cere doole ngeen yokk du ma leen may dara ci luy baax laa koy def amul ruq buy set foo def sa loxo mu làkk la tarkal la yàlla na jàmm yàgg. rendez-vous bi fan la. waaw ci euh, Futurs Médias RFM ah, wax naa yéen observateur dinaa fa dem. bind fa ay article wax naa leen ne même IGFM gi dinaa fa <laughs> dinaa fi dugal ay information yu doy TFM euh, yu doy waar mu en tout cas daal euh, le groupe ah hein, c' Futur Media et on est leader on est leader donc est leader des rejoindre un leader donc pour euh, pour rester leader pour l'éternel quoi vraiment éternel leader respect